am na bo xamni xam tam sama dom dafa wacc na dak nañu janguñu mané ko lu xew mu ne professeur yi neen duñu jàngale parce que fayuñu len ma ñew ci école bi ñu ne ñu dinañ ko régler ñu régler ko c'est avant la covid covid bi jall ñu ñew premier jour ñu né il faut ñu fay 3 mois sinon dañu dak xalé fi ma xey suba tel suba del ñew indi ñaar fukki jooni ak jooni muy ben ñu fay ko xalé yi jang ñetti fan jang tuuti jang ben fan jang genn wala fan ñu né prof yi fayuñu len ñuy jaabante depuis lors ñuy jaabante ñuy jaabante profit di ñëw xale yi di jàng tey xale yi dañu jàng suba femme bi kenn du ko jot amoo ko waxal mais ñun lan lañ borom école bi amul ko doo amul amul amoo téléphone amoo daraam du la faale ñi ko fi teewal nee du leen wuyu amuñu sama accès ñun ñu ngi ñu jàng tey du ñu jàng ngoon secrétaire yaa baa ngi fële xam nga xam nga bu ñu ñëwee na la sa doom jàngul il faut mu jàng pour nga fay yow parent bi lan nga am ban arme nga am da ngay jëw sa xaalis nga fay nga jël sa xaalis nga fayal sa doom nga ñëw tok sa kër sa doom di xey nga xey gis say nawle doom di jang yow sa doom tok sa biir kër. am si ren daaw chaque année c'est les mêmes choses. kenn ren rétention légui ñun ex ba fi légui rétention des notes ñu ne xale yi seen livret duñ ko bind parce que fayu ñu fayul kenn dem na jël na xaliss bi ñun fay nañ. mais malgré ces problèmes yéen chaque fois yéen a ngi ñëw di inscrire lan moo xew exactement lan moo poussé ngeen ñu c'est que sa doom boko duggalé ben école seconde ay professeur am nekk fa seconde première terminale c'est difficile Si bëggee sa doom am am am am école bu da ngay bëgg sa doom école nga bañ déstabiliser. promesse affaire réglé na. Mhm. am papier tout est en rôle. et puis ils ont de bons ils ont de bons enseignants. Oh, ay enseignants yu ils valeureux. Ils sont yu am à des conditions ñom tamit ay borom kër lañu. Euh, wa ñun. lan ngeen jot a ah ñun day ñun day waxul ak ñun ñun day inspecteur waxut ak ñun direction bi mo ñu rendre compte. té ñun timit fim na ni nii xamatuñu fu ñuy taxaw xamatuñu lu ñuy wax dañu bëgg. inspecteur monsieur Ciss bi mu génne ñu laajte nee prof yi d'accord nañu dinañ joxe noonu. man day ñun dal lool dalu suñu xel ñu dal dal suñu xel moy ñu dimbal nañu ci jëmmi nas bu dé bu dé ministre de l'éducation nationale mo ëmb ñangalé mi nañu sarax ngir yàlla ak yonent bi jëmmi nabi Moustapha mu dimbali ñu suñu doom yi jot seen note mu professeur yi nekk ci condition xale yi nekk ci condition jàng mi jeex. ku la gis da nga jaaxle mais jaaxle boobu est-ce que du topp examen à une semaine du bac. xale yi ils sont perturbés les tout le monde est perturbé ñëpp a jaxasoo. Mm-hmm. yàlla rek lañu la ñu bàyyil suñu bopp fi mu nekk nii. yàlla kese la ñu bàyyil suñu bopp. madame lan ngeen di kilifa yi parce que kilifa yi école privée yi du Thiès nekk si njàngale mi ngir yàlla ak yonent bi bu dee yéen a ngi ñuy déglu ay ngir yàlla jëmi na si lu laay contrôlé leen école privée yi mm-hmm. xool li si nekk xool li ci nekk xool ndax xale yi ñu ngi jàng xool ndax jàngalekat yaa ngi jàngale xool ndax kayit yi mat na mm-hmm. xool ndax les condition sont réunies mm-hmm. parce que nous les parents ñun dee nañ wet wet. plus de trente. plus de trente candidats. voilà ñun en fait ñun kenn soxlawul woo ko kenn soxlawul jot ko ñun on n'a pas besoin de la connaître soxlawuñu ko xam ñun nos parents nous suffisent lu ñu soxla yëpp suñu parents ñu ñu koy def. suñu notes yi ak suñu kii ak respect ak respect mu respecté gars yi. respecté suñuy parents respecté professeurs yi. parce que lii du respect xam nga neexul gaay amna am na ñoo xam ñu ngi ki culpa man neenaan profi profit warul leen wax dara parce que nit ku liggey ba fin du mois amna droit ah amna droit laccé parce que ngay xol koy xool sa papa rek mu wara a andi dépense seen kër école euh, état bi joxe na jël na ay milliards jappalé jappalé réew mais gis ah xawma man bëgguma bakkar bëgguma bakkar xawma na école jot nañ ci xawma mais en tout cas ñi nekk di représenter ci biir école fii ñu effort mais toutes les écoles privées jot nañ lolu man maa mais ah, loolu ah kon ñun ñun wane ñu ko loolu kon moom moom en tout cas mom té problème bi askib du Lycée Leclerc Thiès ak Kese Lycée Leclerc yépp la Lus Leclerc yëpp ñoo ci biir même situation xaw ma nag. xaw ma dama war a wax ndax. pas de responsable une semaine moo des ci bac bi. léegi lan la def problème bi. problème bi mooy gars yi seen livre yi remplir ko. gars yi seen livre yi remplir ko. vendredi war na fekk livre yi nekk ci seen centre yi te gars yi remplir te gars yi te jot te cours yi dañ ñu bëggoon nax. duñ ñu bëggoon nax carrément naan ñu ay cours yi xaw ma lan ak lan ak lan. da ngeen def ay composition pas yi ñoo parents yi ñoo bañ. ne carrément parents yi ñoo bañ ne duñ def duñ def ay compo yu jógee Dakar parce que ñoo bañoon fay. amaguñu bulletin second semestre Amna fi ñoo xamne ñu ngi fi am seen prescription ba paré. Amna na ñoo xam université sénégalaise la den. Ñepp comprendre nañ réalité université sénégalaise sa livret la soxla livret bu complet livret bu complet su dee da def prescription sa note deuxième semestre lañu soxla pour affaire yi mat parce que say note dëggal dugal nga ko ba paré ñoom ñun en fait amna matière yu ñu composé am na ñu composé wul ah waaw parce que les profs mom ils sont wa ñoom ñoom ñu ngi seen droit ñoom ñun ñun jotuñu suñu note jotuñu dara parce que daam semaine passée la waxoon balaa semaine bi di jeex da leni fay prof yi dañoo ñëw contrat moral lañ am ak ñun ñu ñëw dóor ak ñun suñu cours mais soo waa école bi soo duggee laaj leen ñu ne dam bi moo wax daa fay daa fay day fay profit loolu tax profit jàng c'est pas vrai profit dañoo ñëw jàngale si parce que dafa am naa taxaw ne ku taxaw fii man la ñun ñoo yor prof yi daa jàngale si Thiès mm-hmm. parce que élève bu bu ñu fi ànd ñu def moom concours ñu bàcc leen loolu moom man mën naa ko wax loolu moom man mën naa nekk rek waaw day fekk exactement exactement xam nga mën nañ ko laal mën nañ ko laal négativement comme positivement xam nga élève bu war yëpp nga def si effort ñëw pour ay affaire ay affaire détail ay livre ngay ñëw ñu lay téye ci ay xam nga bac set une réalité l'oral c'est une réalité ah, ah. échec c'est une réalité loolu c'est une kenn su sañoon fii ñu ñëpp ñu def defe ñëpp dañuy jàll mm-hmm. comprendre nga ñëpp dañuy jàll mais kenn xamul kenn xamul tey jii man mën naa ñëw am moyenne quinze classe seize dem ba bac jour bac ñaanu ma ko yàlla ndox ndox am ma wala dara ma mm-hmm. affolé dem foofu du ma kii sama livre rek moom mën a jàppale ñu xool xam ne élève bi livre loolu mooy njëriñam sax ñu xool xam ne élève bi nii tey dafa am appel bi waaw li ñuy wax état Sénégal mooy ñun ñun moom personnellement dañuy ñaan yàlla dellu suñu bac am ko dem suñu yoon Luis Leclerc moom ñaan nañu yàlla moom mu bañ a tijjeeti moom naan moom loolu suñu paree dañ ciy taxaw beneen affaire beneen xeex boo xam ne après bac bi incha mhm. allah dinañ ko leer mu nag comme comme maire bi comme parent d'élève bi lu mu wax léegi madame Baro lu mu wax léegi l'État a ses responsabilité, L'école privée, nous contrôlons les écoles, régulariser les écoles, nous avons papier, papiers, nous avons des professeurs, nous mettons dans de bonnes conditions. Ah, LES en tout, nous avons des 30 En fait, l'ELS, nous avons 9 ans. 30 31. 31. Ça fait 40, 40 élèves. le avons beaucoup. Nous avons 30 000 francs par mois. 35 000, nous avons 35 000. Le 27 le 25 gars yi andi. le 25 gars yi andi facture ñëpp fay ñëpp fay.